yemm na kon kon acca ñu tàbbi ci li yëglekaay yi xëyee kon euh, ànd ceeg Daouda jigal doore kook réew mi quotidien jërëjëf bu bàkk ba jibee ñu wax la ca gën a fës dañ koy tàmbale yéeni bi nga xam ne moo di réew mi quotidien réew mi quotidien nag moom la mu xëtee si daal jàppande ndetaalu njiitum réew mi di Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ca ne yéeni kay nag lam ci wax moo di fi ñu toll ni nag jàppal ne le président de la république moom moomee nañ ko xaar ca Bakel ca Matam yéeni kay nag lam ci wax moo di fi ñu toll nag jàppal ne ki nga xam ne daal moo di njiitum réew mi di mag euh, maanaam di Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal fas naa dem ngir nga xam ne moo di edam xam ne ñoo féetee ca noor googee réew tey la ñu dese fi ñu toll ni nag mën nañoo wax ne Ngor xam ngeen ne am na soxna soo xam ne moom lañ la ñu jàpp la wàcce wala foofu lañ ko jàppee Sud Quotidien dañu jël benn yéeni a moom la ba tey day ñëw si li nga xam ne daal moo xew ca noor ba wala nag fi nga xam ne moo ca barkeel jàppal ne moom immersion la fa def immersion goo xam ne jàppal ne ñi fa nekk di dund am nañ ay jafe-jafe jàppal ne ñetti nit ñàkk gi nga xam ne daal am na benn bato benn kër goo xam ne moo ca daanu jàppal nag xale ya fañ toll nii jàngeetuñu li nga xam ne moo de salle de classe ya ndox ya ñoo ca nekk yéen kay nag lam ci wax moo di fi ñu toll nii war nañ leen jàppale si wàllum dund dund dundi ndax am na jafe-jafe yoo xam ne moom ñoo fa moom la ñu nekk di dund yéen kay nag li nga xam ne moom la ci wax moo di armée ba daal moo ngi fa ngir jàppale ñi nga xam ne daal mooy ay village yu mel ne kuréel Samba Namba fi nga xam ne moo di mooyo yéen a kaay lam ci wax moo di fi ñu toll ni organisation mondiale euh, pour la mise en valeur du fleuve euh, Sénégal ñoom ñooñee nag ñoo ngi andi ay explication di wax li nga xam ne moo ca nekk di xew waaye jàpp nag le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moomee fas yéene na faa dem ngir andi leen li nga xam ne moo di dooleem waaye nag andi li nga xam ne moo di soutien wam la Euh, journal Bougane bi nag moom lam ca wax moo di débordement bi nag ne daal ñoo fa féetee ca ne daal ñoo fa nekk fi ñu toll nii euh, ñoom ñooñu daal euh, dañoo am ay jafe-jafe leen fàtte état lijjantu leen état fi ñu toll nii daal jàppal ne politique moom rek la tal yéen kam nag lam ca wax moo di fi ñu toll nii ne daal ñoom ñoo nekk ca localité yooyee jàppal am na benn xale boo xam ne sept ans la am kookee daal dafa lap ci li nga xam ne moo ca ndox ba loolu la la Bougane gay Dany bi andi Walf Quotidien dañuy jël benn yéenekaay wax ca la ca gën a fas Walf Quotidien la ñu jël Walf Quotidien moom la mu xatee si xatam gu njëkk nag mooy fi ñu ni daal jàppal ne fee nga xam ne daal moo ki nga xam ne daal moo di euh, euh, maanaam OMVS ñoom fi ñu toll ni dañoo activé li nga xam ne moo di vigilance rouge maanaam daal jàppal ne foofee jafe-jafe yi daal euh, dina gën a continuer leneen loo xam ne mën nañ ko jël si yéenekaay bi nga xam ne moo di Walf Quotidien Amadou Ba le chef de l'opposition Diomaye ak Sonko dañoo war a bàyyi jooy bi ñoom ñoo waxoon mën nañ askan wi jox nañ leen fi ñu dool ni nag lenn moo des mooy ñu liggéey waaye naka bàyyi li nga xam ne mooy heure bu ñu xëyee rek di jooy yéen kay bi nag leneen li nga xam ne mën nañ ko wax moo di fi ñu toll ni nag ñu nga xam ne daal Ousmane Sonko nee na leen kenn ku ne koppar ga nga yor na ko andi euh, def ko si gafa gi Bougane nag fi ñu toll nii nee na ñoom ñooñu daal jàppal ne haute njëkk a dem enquête yéenekaay enquête yéenekaay moom la jël moom moomee la mu xat si xat mu njëkk daal moo di euh, couverture pré campagne bi nga xam ne moom la ñu nga xam ne fi ñu toll nii euh, nag a mën nañoo jàpp ki nga xam ne daal moo di njiitalu général di Mamadou Omar Ndiaye moom nag fi ñu toll nii lam ca wax moo di jot nañu def si waxtaan toog waxtaane waat ko ba kenn ku ne xam lan mooy responsabilité Mamadou Awa Ndiaye euh, Mamadou Omar Ndiaye lam ca wax moo di bu ñu jugee si lii nag ay sanction dina mujjee dal si li nga xam ne moo di euh, organe de presse yi wala taskatu xibaar yi les échos les échos moom la ñu jël les échos la mu xatee si xatam gu njëkk nag jàppale ne ca port autonome de Dakar démb am na vidéo boo xam ne daal moo ca benn euh, navire boo xam ne euh, moom moomee moo ngi tudd Prince Jessica boppee daal jàppal ne moo dugg si li nga xam ne daal moo ca biir ndox ba yéen kay nag fi ñu toll nag ñëw na ndaxte ñëw na wax li nga xam ne daal fa lan moo ca xew Prince Jessica boobee 2023 ah, dañ koo tegum ah, loxo ndaxte daal respecté woon anam gi nga xam ne moom lay duggee si li nga xam ne moo di waaxum Sénégal yéen kaayam nag lam ci wax moo di fi ñu toll ni jàppal ne ba tax boobee nga xam ne moo di presse ah, Jessica waroon naa fay ay salaire am lu toll si cinquante millions six cent quatre-vingt-quatorze mille loolu daal mooy li nga xam ne moo ca gën a fës ba tey yéen kaay bi nga xam ne moo di les échos leneen li nga xam ne moom la ci àndi Amadou Ba moom moomee nga xam ne mooy leaderu coalition bi nga xam ne moo di jàmm ak njëriñ jox na leçon Ousmane Sonko moom nag lam ci wax moo di fi ñu toll ni daal moom dafa jël congé ngir euh, bàyyi woon leen ñoom ñu dula euh, maanaam ñu doxal waaye Amadou Ba nag lam ci wax moo di fi ñu toll nii ñëwaat na de retour moom nag leneen li nga xam ne moom la ci wax moo di fi ñu toll nii gouvernement wu Sénégal na bàyyi jàmbat gee jooy ñoom ñoo laajte woon ñu jox leen jox nañ leen nañ mën boobu nekkee mënuñu ñu bàyyi ñeneen ñëw. Vox Populi. dañuy jël Vox Populi wax ca la ca gën a fës dañ cee jël ki nga xam ne daal mooy Moustapha Sarré moom mi nga xam ne daal mooy porte-parole du gouvernement Macky Sall euh, maanaam bu Ousmane Sonko ko Diomaye ki nga xam ne moo di Moustapha Sarré moom nag lam ci wax di ki nga xam ne moo di Macky Sall kàddum yi nga xam ne moom la génn ne réew boo xam ne daal chiffre wala nag point yi dañoo vertoon euh, ki nga xam ne moo di Moustapha Sarr lam wax moo di loolu du cëram ndaxte Macky Sall li mu fi def yëpp bu mënaatee am fitum taxaw tey di wax loolee jàppal ne moo di respecté wul ay euh, maanaam sénégalais Moustapha lam co daal moo di dëgg-dëgg Macky Sall moom ak li mu def si réew mi si euh, 12 ans yi daal leen rek la ko mérité woon les sénégalais moo di mu yëkkati ay kàddu jéggalu leen ne leen daal naam maa leen tooñ loolu daal la Moustapha Sarr yëkkati jëmale ko ay kàddu jëmale ko ca Macky Sall. bés bi le jour. bés bi le jour moom nag lam ci andi moo di wàllum inondation ba ca nord ba ca est moom nag lam ci wax mooy tout sauf le report maanaam daal élection législative yi nga xam ne moom la ñu jëm dafa jàpp ne daal jafe-jafe yi nga xam ne askan wi moom la ñu nekk di dund dañ see waroon mën a reporter li nga xam ne moo di élection yi ndaxte jàpp na ne ñetti xale ñetti nit ñàkk nañ seen bakkan fa nga xam ne daal moo ca moo di euh, euh, euh, moo di fi nga xam ne moo ca zone Barkel ba yéen kayam nag lam ci wax moo di fi ñu toll nii rek jàppal ne njaga si la expert maanaam maanaam expert la si wàllum élection moom nag lam ci wax moo di naam benn drame amoon na si élection législative yi kenn rek ca ñàkkoon ba keneen te élection yooyee euh, dañ ko répété woon moom nag la mu ci wax moo di fi ñu toll nag euh, nguur gi fi nekk xam ne askan wi moom la ñu nekk di dund ay jafe-jafe fi ñu toll rek la xool moo di nan ñuy demee si ay élection L'As quotidien L'As quotidien moom la mu fasee si xatam gu njëkk daal moo di naamal Kajoor Idrissa nii élection législative yi nga xam ne moom la ñu jëm leader yëpp di wane seeni appartenance kenn ku ne di wane ne coalition bi nga xam ne moom la bokk yéen kay nag la ca wax moo di la moo tax te maanaam ki nga xam ne moo di Idrissa Seck moom mu may li nga xam ne moo di patt pataaram kenn déggu ko daal si li nga xam ne daal moo di coowal élection yi Le Verdict News. Le Verdict moom nag lam ci wax moo di kuy wut turandoo jàppal ne bu weesoo Moïse nag jàppal ne Ousmane Sonko moom mooy Moïsum Sénégal yéen i kaay nag lam ci wax moo di fi ñu toll nag Ousmane buñ ca teelulee jug jàppal daal ña fa seen i judd ñoom ñëpp moom lañ ko war a tuddee ndaxte yéen i kaay bi nee na moom Ousmane Sonko si xayma na daal lu mat si un million ay turandoo loolu daal moom la ci wax nee na daal àdduna ba mu wër sa maanaam ba mu wër bu ñu xoolee daal ñi fi tuddee gum Ousmane Sonko ay turandoo mat na un million ma ne ko loolu it bëri na na ko mën a wàññi libération dañu jël

lu ñu signé woon moom moomee daal ñu uh, matale ko ba mu mat sëkk. yor yor bi. yor yor la ñu yor yor la mu xatee si xatam gu njëkk daal moo di le nier de l'université maanaam Columbia jàpp ne ki nga xam ne daal moom la ca wax moo di Oumou Diallo ca uh, université commune uh, maanaam Columbia ginnaaw gi nga xam ne daal am na jotaay ba fa doon am moom nag lam ci wax moo di fi ñu toll nii Afrique dañoo bëgg ay njiit yoo xam ne ñoo leen di représenté euh, comme Ousmane Sonko waaye Macky mi nekk fa a ko xam ne moo di FMI yéeni kayam da koo maquillé yéeni kayam nag euh, maanaam ki nga xam ne moo di FMI ñëw na ca bu ñu sukkandikoo ba tey si yéeni bi nga xam ne moo di lii quotidien moom nag la mu ci wax moo di daal déclaration Ousmane Sonko googee jàpp nag si wàllum politique euh, si euh, dem gi dikki wala li nga xam ne daal mooy wàllum investir wala wàllum économie nag jàpp ne ay jafe dina ko am moom nag la tax mu jàpp ne loolee dina moo di Ousmane Sonko kaddu yamu yëkkati woon waru ko woon yëkkati ndaxte fi ñu toll nii ñii di investir ñu bëri dina daw réew mi ndax Ousmane rek moo ko waral le quotidien journal Madiambal gi ñëw na moom nag lam ci wax moo di wàllum conséquences yi nga xam ne tàmbali na ca wàllum maanaam inondation bi moom nag lam moo di fi ñu ni daal état bu Sénégal xamul fan la jàll dafa patauger si li nga xam ne moo di wàllum inondation bi moom nag lam ci moo di fi ñu ni askan wi ñoom ñoo ngi dund li nga xam ne moo di wàllum désarroi moom nag fi ñu ni jàppal ne maanaam OMVS fi ñu ni moo ngi gën a ne mbir mi moom mën nañu wax ne war na gën a mën a pire seet moom fi ñu toll ni jàpp na ne 90 pour cent euh, fi doon béyee si jafe-jafe ya lépp ndox ba yàqu na wala it nag jël na ko yéen kayam nag leneen li nga xam ne moom la ca wax moo di jàppal ne benn xale bu am sept na ba li cooli di ne élection législative a tal ne daal ñoo nekk ca moom moo di navire bi nga moom moo dugg si waaxum poorum Ndakaaru di li nga xam ne moo di Jessica yéen kayam nag ñëw na ci andi ca leeral dëgg-dëgg wax noonu ji Chicago gi nga xam ne dafa am benn euh, benn euh, bato boo xam ne moom la mbëkkante di euh, di MV Zocarifia bi nga xam ne daal jàpp ne loolee moo waral li nga xam ne moo waral bato bi di Jessica li nga xam ne moo ndox ba yéen kayam nag lam ca wax moo di e boobee daal ñetti marin yoo xam ne ñoo nga fa woon waaye fi ñu toll nii ñoom ñëpp li taxoon ñu nekk fa mooy seen salaire lañ doon xaar il a cinq mois jamono gi nag lam ca wax moo di fi toll nii nag ñoom ñoo ca nekk di dund ay jafe-jafe ginnaaw gi nga xam ne bato boobee dugg na si li nga xam ne moo ca ndox ba leneen li nga xam ne daal mën nañ ca wax moo di euh, kaaw ba am ca zone nord ba moom nag ñëwaat na ca wax ca euh, ñetti nit ñi nga xam ne ñàkk nañ ca seen bakkan waaye nag arme bi nga xam ne jamono gi moo ngi fa di def liggéey bu am solo le soleil le soleil moom nag la mu xëti si xatam gu njëkk nag jàppale ne ki nga xam ne moo di ministre de l' économie du planète de la coopérative ki nga xam ne daal moo di Abdourahmane Sarr moom moomee ñëw na si li nga xam ne moo di Sénégal 2050 wax vision bi wax fan la ñu nar a jëlee Sénégal ak fan lañ ko war a yóbbu waaye nag wax si huit pôles yooyu waaye nag wax si askanum Sénégal na leen ci war a mën a gisee seen bopp waaye nag wax si euh, financement boobee fan war a mën a jóge waaye wax si tey euh, bu ñu yegg ca 2050 daal jàppal ne réew mi di Sénégal euh, dina jóge fi mu nekkoon Tribune Sport. Euh, tribune Sport moom la ñu jël jàpp ne fi nga xam ne daal moo di Jeux olympiques jeunesse bi nga xam ne daal dañ ko war a am fii nga xam ne moo ca Sénégal yéen kay am nag lam ci moo di fi ñu toll nii euh, ki nga xam ne daal moo di président euh, Jeux olympiques boobee di Thomas Bass Sénégal fi ñu toll nii ñoom ñoo ne daal jàppal ne confirmé nañ ko nee na daal dinañ pare ngir Jeux olympiques boobee ñu mën ko organiser si lépp lu jëm si wàllum infrastructure waaye nag lépp loo xam ne daal mën nañ jàpp ne mën nañ ko def ngir Jeux olympiques nekk loo xam ne réussite lay doon si réew mi di Sénégal le Dakarois sport. le Dakarois moom lañ ci jël moo di ginnaaw gi nga xam ne ministre bi yor wàllum sport dafa delluwaat leng ba ñu fare ca làmb ja ngir ñoom ñooñee ñu tànn kan ma war a doon seen candidat wala nag kan ma war a jiital yi nga xam ne moo ca CNG jàppal nag depuis démb ñoo ngi dégg maanaam ki nga xam ne moo fi nekkoon arbitre di Malick Ngom moom moom la ñu tabb mu doon li nga xam ne daal moo di njiitalu CNG jàppal nag ministère sport ñoom ñooñee yëkkate ñu ay kàddu démentir que ne ba fi ñu toll ni daal si ñetti candidat kenn koo xam ne moom lañ ca tànnagum jërëjëf euh, Daouda. jërëjëf Ahmed loolu moo gënoon fës li ñëwoon à la une des journaux. xam naa dama la waroon a bàyyi nga baam ma rek nga maam ba euh, jàll comme que doyalagoo xam naa ne xër gi ci xër moo tax euh, ñu ngi lay jaajëfal.